kedua dañoo dañoo war a dem ñu ñuy xaar dañuy jox kàddu gi le coordonnateur départemental mu wax lu gàtt rek suñu paree ñu jox président Diomaye mu saafante ak yéen ndax alo bandiraɓe sehilaɓe bandiraɓe e département ranérou min calmini on goto moon foof inde mum e yettode mum donc hande ari ɗo ko président men mo gandanɗa hoorema ko président ousmane sonko subani en won président bassirou diomaye kanko ɗum wi ɗum sonko moye diomaye diomaye moye sonko haala gasi donc Ousmane Sonko ko ɓoowi wiide neɗɗo o ala importance waɗi ko importance ko projet o donc enen ɗo hannde dernen fof ko projet o par ce que projet o ala ko jaranani en projet o wonto tawi en en jeyade makko muusi noon ha muusi en ɗawanima ha ɗamtinama mais allah yadam tan koye gongo hande allah hokki président ousmane sonko gongo àll wo kii goonga ɓe jaggino président ɓe nannimo kaso huit mois ɓe pin tan jour goto ɓe goppitimo ɓe caggal noɓe goppitimo ɗe ɓe laabtinimo kadi haw laaɓi ɓe mbi o meeɗa waɗde haydara ko witana oh, ko fof woɗani donc on hannde ko laamu eɗen mbawi wiide alhamdulillah on a gagné c' est presque déjà gagné affaire o gasi vraiment gasi ka o parce que peydo ha wursoygi matam donc oɗon fof eɗen gandi campagne ko janggo gasata janggo vendredi omo foti ruttade ha thies ha hande to woni ɗo suwa yaade vraiment ko gantu rek ha gongol so allah jami. donc euh, euh, monsieur le président dama bëggoon rek sànni quelques cadres donc fi nga le département de Ranérou Ferlo je pense que c'est le département le plus pauvre au Sénégal fi Aranérou Aranérou fi ndaw yu liggéey ñu amuñu benn liggéey amul jeune bu fi dekk bu ñu recruter recruter ci fonction publique amul loolu amul l'année dernière en 2021 nous avons eu un recrutement de 5000 enseignants département de rane recruté wuñ ci kenn vraiment fii jeunes yi dañoo sonn ñi fi nekk lan fi lan la fi nekkee di di wax wax yi nga xamanteni ni ci maanaam diabolisation rek moy seen bilan fi ñom amuñu lu campagne fi fii nii waru amuñu luñu ñu wax parce que defuñu fi dara seen campagne fi mooy lan diaboliser le président Ousmane Sonko lool rek leen fi nekkee mais lépp lu ñu ci Ousmane Sonko loolu musul am ñëpp xam ngeen loolu amul vraiment on vous souhaite la bienvenue bukk ñu fi bukk leen fii tee xam naa ni yoon bi dafa gudd et puis ci wéru koor lañ nekk

tan jogoraaɓe mooraaɓe aɗa anndi hol moorowo en o oh, basiru jamay fay o oh, presidente ousmane sonko oh, o président ousmane sonko mo halkini projet o par ce que projet o ko sonko wi tan woni goonga o wiino yimɓe ala importance jaggene projet o en jaggude e projet o woni jaggude tigi rigi e président sonko jooni noon ko maccuɗa estimidiri o gollere men gandol gueɗel gotel min dokkuma ɗaɗɗum fof beele omo fawno rewranero o fewnorani waɗa komin golle golle timmuɗe est ce que on mbaɗi golle est ce que oɗon mbaɗi ndiyam est ce que oɗon mbaɗi université mbimi haytomon allah halkoɗirat koye men njëkk ne président Bassirou nee na fii dëkk bi dafa dëgër amul xaalis amul liggéey amul université ngeen fal Bassirou Diomaye Faye le 24 mars mu am benn ngeen am quatre vingt cent vingt président Ousmane Sonko président Diomaye Faye Assalamualaikum jaajëfal nee maa dulu leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte contentement ci accueil bi tertu bi ngeen ñu tertu ñun waa coalition Diomaye président ak ñi ma ci àndal yëpp yeneen leader yi nekk ci biir oto yi ak ñi ngeen di gis ci biti ñu bëgg leen wax ne nag caravane bi ñuy def ñu ngi koy def di ko jëmale Sénégal yëpp pour bokk ak ñoom waxtaan bi nga xamante ne moo soxal senegal muy ñëw fii Ranérou xam naa ne mi ñu leen laaj ndax am ngeen ko boo moytul li ngeen wax ne amu leen ko li amoon sax boo ngeen laajee ndax yéen a koy téye ba tey boo moytul leen ne amatoo amatoo leen ko ku ñëw fii Ranérou mel na bu ñu jógee duggee Jolof ba tey ba Ranérou ba fii ngay romb Ranérou ñu fi nekk ak li ñuy njëkk a def ren fii mooy jël forêt forêt classée bi tere ko béykat yi mais boo defee loolu ba pare dañuy xool lan ngay ci seen loxo naka nga leen di gunge ba li nga xamante ne xam nañ ko ci ci càmm ak ci leneen nga gën leen ko développer ñu mën ci gis seen bopp. dafa dépassé ni ñu continuer di dox ay kilomètres kilomètres pour wugg seen nag yi wala day jël seen jur yi di ko yóbbu ay kilomètres kilomètres kilomètres. loolu laa war a jeex daa war a jeex daa war a jeex li leen di wax rek yéen waa Ranérou mooy am ngeen ay doom yoo xamante ne xam nañu fa dëgg bi féetee ak fan senegal Sénégal bëgg a jublu te ñu ngi waxtaan ak yéen Samba Camara mii maa ngi koy door a gis ñaare ñaareelu yoon ma koy gis tey jii mais depuis bu mu duggee ci projet PASTEF projet bi ñu porté ñëpp ànd ci tey lu ne. wax nañ ko ko pour lu ne di yem nañ ko ko jox pour jënd ko pour mu dem ci gouvernement bi mu bañ parce que xam na ne njëriñu askan bi nekkul foofu projet bi nag porté nañ ko ba fii li ci des yéen koy matal ni ngeen koy matalee mooy au soir du 24 mars dimanche bii ñuy dem ngeen dox doxu fula dem ci centre de vote ci fula wote ci fula élire le candidat de la coalition Diomaye Président bu ko defee ñu gën a doole Ranérou ci li nga xamante ne moom la waa Ranérou di xaar fii ak nu mu sore waroon na dëkk bu ne mu am ambulance mais ñaata dëkk lañu am ci biir département de Ranérou te amuñu ambulance boo feebaree ci lan ngay dugg pour dem faju ji ay charrette mënuñu continuer ñu ciy teg ay jigéen yuy matu ñuy dox ay kilomètres kilomètres pour wasim loolu du yoon té li koy saafara am na Sénégal li ma doon wax duma tay diko wax man mi Dakar la dëkk li may bëree feebar dem ci clinique wala ma feebar dem ci hôpital fekk fa docteur bu baax ñu faj bu faj bu baax nu ma nekkee Dakar am droit bobu yeen ñi nekk Ranérou non ngeen am droit bobu parce eh, que ay sénégalais ngeen ñu sénégalais yëpp suñu projet bii leen di présenté pàcc bi benn la dafa jot li ñëpp bokk ñëpp jot ci dafa bokk li ñëpp bokk ñëpp jot ci moom ñoo continuer nag bàyyi ay sàcc ñu continuer luubal alalu askan wi bu ngeen gisee bale bii xam ngeen ne dafa am lu ko tax a jóg lan moo ko tax a jóg mooy raxas mooy bale ñi fi nekk saltelkat yi fi nekk di saltel saltel mbéy mi saltel càmm gi saltel napp gi saltel lépp ba ñëpp ñi nga xamante ne ñun ci biir askan wi gisatuñ seen bopp suñu feccoo tey da ngay daan di ñu andi problème. pas de l'électricité, on n'a pas de l'eau. On vit dans la féodalité, on veut du changement, on n'a pas d'université, même des écoles. On n'a pas de bonnes écoles. Diomaye rek mi ngi pile bàcc yi dal mi ngi pile président Diomaye. Kaw sa xiir bu dara seet dara du sax mi ngi pile Diomaye dem pare. mi ngi pile bu yomb. tuuti rek tuuti rek ñàppal rek. Diomaye. Wow.

ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ko naroon voteel ñu daal di ànd ak Bassirou Diomaye Faye ñuy fàttali nag ci député parlementaire yooyu ñoom ñoo ko rek euh, defaloon parrainage dafa opté woon pour parrainage euh, parlementaire ci loole nag la daal di rek xam euh, xamle ne daal di nay bàyyi lu jëm ci élection présidentielle yooyu di ñaar ñëpp di voteel ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye kon nag ña ngay woy li beneen ginnaaw étape bi nga xam ne moom ma nekkoon fii ci Ranérou ñu jóg leen di daje ak ci kanam tuuti ci beneen étape incha allah